asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 5 novembre 2019 ñu ñëw yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey jàppal sunu làmbala la yëglekaay bi nga xam ne nii moo di record l'observateur Leewtoo TV ba ca Ligue TV ku ci nekk rek tey ñëw xëy nga indi ay xibaar bu dee yëglikaay biir sunu làmb la nag moom fa mënu xëy génne fenn la kii nga xam ne nii day moo di moo xëy tey ngardaajoo yëglikaay bi dal di nag dal ci kaw Modou Lo ba mu neex dafaa daal mu ngay dànkaa fu Modou Lo di ko xamal ne day lu mu bax mën naa koo ngeer tey itam nag pare naa ngir jàkkaarloo ak moom ndax lépp lu mu laaj lu mu mënta doon rek man tafaatin yore naa ko te nag jàmmaarloog muruwa moom dafaa jàpp ne fi mu nekk nii day pare def ko bu baax a baax a baax ñu ne ko yàgg lig mu ne lig moom déggoo nañu Tapha Tine mooy wax nee na fi mu nekk nii moom ah loo ci mën a dégg moom taxaw na Ama Baldé itam jox na ko wàllam ndax ne ne li leer ba leer day pare woon naa nag ngir ko lu mu masta gis maanaam biddiw bëccëg daal la ko bëggoon a wan moom Ama Baldé waaye daa jàpp ne kon moom da caa rëcce Tapha Tine ba tey moom mooy wax jàpp na ne sax fi mu nekk nii day moom la gaa ñi gën a bëgg comme ni ñu bëggee kaani Tapha daal fi mu nekk nii moom dafa mel ni tey xëy na nag wax làqu ba daal wala boog noppi ba da dal di génn wax na la nga xam ne nii moo ko saf ci jàkkaarloo boo xam ne jàkkaarloo na ko ki nga xam ne moo di Boubacar Niang mu mel ni ki nag combat boobu nga xam ne nii day moom moo di tafaatin ak ki nga xam ne ni moo di Modou Lo wala Ama Baldé ak Modou Lo fi mu nekk nii yëglikaay bi di record xëy na tey ci xalima ak Abou Ndour yëglikaay ba nag nee na ki nga xam ne nii day moom moo di Tapha Tine wala boog ki nga xam ne nii day moom moo di Ama Baldé ubbil na yeneen promoteurs yi ay buntam fi mu nekk nii maanaam daal nekkatu fi di xaar kii wala kële képp ku ñëw jubóog moom mu sëgg bëreel la moo tax yëglikaay bi na lig Nikolaay moom lan lay def nii wala lig lu mu nar mbaa dux toog wala mu xool ba combat bi rek ko wala Ama Baldé yëglikaay bi moo xëy ñëw di laaj lool ci xalima ki nga xam ne moom moo di Abou Ndour waaye dafa mel ni ñoom waaru ëllëg si ba tey rek ci record ñoom itam day fi mu nii ndigal joxe nañ ko ngir nag mu mel ni ki moom loolu fi mu nekk nii lu leer naññ naññ la ba tey ci record rek ñu ngi xamal ne kii di Modou Lo moom jël na ay décision ngir nag xale yi nga xam ne dañoo nekk ca écurie ba nga xam ne Modou Lo énergie nag pare na ngir jàppale leen dimbali leen bu baax a baax a baax yëglikaay bi record a xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni kii noonu ginnaaw ba nga xamee ne moom nangu nañu mu ba ay xale yoo xam ne ñoo nekk ci Rock Énergie Modou daal fi mu nekk nii daa mel ni des ci carrière am waaye Rock Énergie daa bëgg mu gën dëgër moo tax nag suñu làmb itam ñuy xamal ne day Modou Lo nag jël na kii nga xam ne nii day moo di latoo boole ko ca ñi nga xam ne ñoo koy encadré wala ñuy encadré Rock Énergie ngir nag ay mbiram gën dëgër làmbam gën a tege ci aw yoon moo Lo loolu tamit bokk na ci loo xam ne nii def na ko koo xam ne nii moom dañ koo ko waxaloon démb mu xëy weddi ko moom moo di ki nga xam ne nii moo di Tafa Gueye ca lañ ne woon daa convoqué ab réunion Tafa Gueye nag loola yëglikaay ba ko waxoon weddi na ko wala Tafa Gueye weddi na ko moom daal mosta convoqué réunion tey suba waxi noppi waaye dañuy dem fa nga xam ne tamit mooy ca Ligue TV foofa moom kañ fay fekk mooy rëg-rëg mu jóge États-Unis ne ca otoom ñu dégg ko micro muy wax rëg-rëg nee na li leer ba leer day muy Bombardier keneen ko mu mën a doon amut ci ñoom koo xam ne nii tiit naa la wala ma lay ragal ñu ne ko yàgg bomb mu ne bombardier bis bu nu bëree mu xam ne lépp dëgg la ndax nag maa ko doon ku maa ko dàq bëre te jàpp na ne moom poids lourd la te man maa ko gën a lese ñu ne ko waa États-Unis ndax jëloo fa poids mu ne foofa ku fa dem foo jaar am poids ndax lekk ga baax na te tëdd ba nooy na te da ngay entraîné ba tey mooy wax ñu ne ko yow ndax ki nga xam ne nii moo di Bombardier moo tax nga dugg ci MMA bi mu ne déedéet taxul ma dugg ci de dama di xale def di def sport war koo def moo tax ma dugg ci man rëg-rëg ñu ne ko léegi nag kon daal fi mu nekk nii say daa jël Bombardier mu ne li may du sax Bombardier Modou Lo yor muy roi des arènes bi nee moom ca li nga xam ne moo di bëtam moom rëg-rëg moo xëy ba tey ngar daajoo foofu nga xam ne moo ca Lutte TV dafa wax li nga xam ne nii day moom moo di ay soxlaam meneen mbërëg ngi moom moo xam ne nii day boo bëggee dégg dëgg moom am nañu mu sampal ndënd muy Ibou Ndiaye ubbali ci sunu làmb nee nag dafa pare fi mu nekk nii ngir jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Tyson 2 Forza bu Fass ak Cobra numéro 2 Ibou Ndiaye ubbali daal nee na leen yéen ñooñu ma lim ku ci ñime rek simpil sama ndënd ndax nag sampal naa la ko bu baax a baax baax ñii moom seen ndënd wala la ñu sampoon ci combat nañ ko amee day wala fañ ca mujj baaxul muy waa écrit tefes gi mu mel ni ki nag ñoom seen tefes ga daa waroon weex wala ndox ma leer nañ waaye daa mujj ñuul kuk kuk six combat la ñu def juróomi defet lañ ca jële ak benn ndam loolu mooy écrit tefes gi la nga xam ne moom la ñu am ci li nga xam ne moo di ay résultat bu nu demee ci yëglekaay bii nga xam ne nag moo di l'observateur l'Obs moom dafa xëy ñëw dalal ki nga xam ne moo di Serigne Ndiaye Coriace nekk écurie Fass yëglikaay bi ne daal espoiru Fass bi moom la xëy dalal moom waa l'observateur ñoo ko dalal moom nag nee ay bëgg-bëggam daal li mu xalaat te mu ne ci xelam mooy romb lii nga xam ne mooy mbirum sax Tigre de Fass bëgg na ci làmb galon yoo xam ne ñooy ëpp Tigre de Fass doole fukki yoon ak juróom ñu ne ko jàng ak li nga xam ne nii mooy école bi mu ne moom daal wax dëgg yàlla làmb ji moom moo ko dàqal fi mu nekk nii bu baax a baax lii di bi Serigne Ndiaye numéro 2 mooy wax mooy fi nga xam ne nii day moom moo di ca yëglikaay bi nga xam ne moom moo di l'observateur wala boog yëglikaay bi nga xam ne nii day waaw lobsu daal mu ngi ñu xëy dinu xamal ne day li leer ba leer nag promoteur yi ginnaaw ba ka nga xam ne mooy directeur Léopold wala directeur des infrastructures génnee wax ay waxam ci Léopold Senghor ne làmb moom bis ku liggéey dootu fa amati mu mel ni ki nag promoteur yi moom ñu nga armé wu daal di ko xaar ngir fas yéene nag def seen contre attaque ñoom daal bu ñu tëjee Léopold Senghor ci la xaar def ñoom la ñu bëgg def wala ñu wax la ñu bëgg wax mu mel ni ki daal kon foofa ah daa mel yëngu-yëngu nar na faa am am na koo xam ne mi moom ab yëngu-yëngoom ci fan yi jig na ko muy pakala yëglikaay bi nga ko war a xëy tey wax na ko li ko dalee àjjuma ba jàpp dimanche ndax nag yëglikaay bi nag boo bëggee dëgg day dëgg dëgg ki nga xam ne mooy champion def leen ba ca deux mille di ca deux mille huit yëglikaay bi ne na li leer ba leer muy général Malick muy ki nga xam ne ni mooy mbaytin muy ngel jon ñoom ñëpp daan na leen ci entre àjjuma ak li nga xam ne nii day moom moo di dimanche moo tax yëglikaay bi ne na ajjuma ji ñu génne fa nga xam ne mooy Adrien Senghor moo fa final ak mbaytin gagné ko ñu ne diit ne waay mu ñëw ci fa nga xam ne ni day moo doon terrain gaal gi te jàk sa deux millions yam leen fa tegaloon wala deux millions cinq cent mu finalu fa ak Serigne Ndiaye numéro deux ñàkk moo tax yëglikaay bi ne na boo bëggee dëgg-dëgg ci soixante-douze heures maanaam juróom-ñaar fukki waxtu ak ñaar daal kii nga xam ne moo di pakala encaissé na ci un million quatre-vingt mille francs mel ni ki daal kon moom lambi simple ji moom ñëwaat na ci bu baax a baax a baax ngir nag wane boppam li leer ba leer daal loo ci mën a dégg toog di xaar benn combat boo xam ne da nga koy bëre ñu dig la ko ay weer wala ay at te la nga cay am boo sàgg ni du bëri yaakaar naa te nga di mbër mën a bëre wuru sa doole defe naa ñu teg ay millions ak huit cent mille ak lu kenn xamul yaakaar naa li gën a wóor mooy nga ñëw nag takk sa ngemb entraîné ba ne ca fas yéenee jongante ndax nag yàgg maar genn ngoon nga am deux millions wala un million wala cinq cent mille mbaa sax cent mille yàgg maar loolu yaakaar naa baax na de man su ma ko mënoon dama koy xel di def kon pakala fii mu ko teg nii daa mel ni nooy na te neex de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 def tey euh, làmb ñoo mel ni ki si ni record euh, euh, sunu làmb observateur Leewtoo TV ñu commencé nag ak sunu laam sunu laam tey nag dafa xëy dala ki nga xam ne mooy Tafatine borom takk sirib Tafatine nag moom nee na pare na d'accord na ak promoteur bi nga xam ni moo dox kombaam ak ki nga xam ne mooy le roi des arènes Modou Lo nee na d'accord na waaye nag bu mu ñëwee waxtaan ak moom ba nu d'accord ci ay kàddu ba léegi daal gisul Luc Nicolaï dafa mel daal dafa réer. waa tey moom boo xoolee kon da nga naan journaux yi riis na L'Obs record ak Leewtoo sunu làmb ak Lutte TV ah fu nekk am na lu fa xëy lu bees Tapha Tine nag ah nee na moom waxtaan na ak promoteur ba ñu déggoo gisaatu ko kon xëy na kon dama naan mbir yi desatul ci moom mbir yi ci Luc Nicolaï la dese parce que moom mooy le promoteur mooy dox combat bi moom moo demoon dox combat Modou Lo ak Ama Baldé déggoowul ak Ama Baldé ci côté kase mu bëgg a jël tafaatin def ko plan B am waxtaan na ak moom ñëwaatul ah loolu nag euh, liñ ci liñ ci mën a wax daal mooy que ni ki maanaam ki ñëw ne dafa bëgg ci yow nangam nga jox ko sa kàddu gisaatoo ko li nga mën a def mooy xaar ko ba xam dina ñëw wala du ñëw tafaatin kon xaar la mën a def waaye tamit euh, loolu dinañ am si làmb xëy na nag li li damaa yaakaar dina ñëw loolu laa foog comme moom moo demal boppam wax ba déggoo am ah yaakaar naa ne du bàyyi ay waxam mu naax saay noonu parce que itam euh, événement yàgg na ko tëg te defe naa événement jaaxalu ko laa foog Babacar journal aussi mi ngi nii xamal ne que ki nga xam ne mooy Lato mu nekkoon coach su Parcelles Mbolo léegi daal mi ngi si côté Modou Lo waa Rock Énergie jël nañ ko pour mu nekk bokk si entraîne entraîneur yi nga xam ñoom ñooy entraîné mbër yooyu nekk écurie Rock Énergie. waaw loolu de moom yaakaar naa ne defe naa ne su amee ndax Lato yaakaar naa doomu Parcelles la. Modou Lo di doomu parcelle toog énergie nekk écrit bu nekk biir parcelle Lato xam nañ ko ci ñoo xaman nañ ko ci ñoom Zos ñoom Moussa Dioum defe naa mbër yooyu yëpp ku ci ne am na lu mu def ci sa carrière tey su ko Modou jëlee yaakaar naa wala waaruk énergie jël ko xëy na xam-xamam la ñu soxla pour lan mu gën a yokk leen doole parce itam maanaam am na loo xam ne nii moom wolof ne na dompat ci sot la bokk waaw te yaakaar naa ne Lato am na lu mu war a mën a yokk Rock Énergie am na lu mu war a mën a yokkal tamit ñi nga xam ne nii moom ki nga xam ne ni moom mooy Modou Lo parce que boo xoolee Pape Mbaye yaakaar naa ne actuellement mu ngi entre Espagne ak France yu mel noonu ndax dina ñëwaat du ñëwaat loolu mënuñu ci xam dara. semaine prochaine incha allah. waaw bu ñëwee nga yokk Pape nga am Pape Mbaye am Lato am Aline John ak ñooñu. am Ndiouga xam nga kon yaakaar naa loolu day gën a dëgëral écrit te defe naa itam loolu ku nekk bëgg nga ko maanaam sa écrit sa staff am doole pour que tamit say xale a def performance kon ñu ngi naan ñaanal li Lato yaakaar bu waaru ko ne sa am ci moom ba jël ko ah yàlla nañ gis njëriñ bi parce que tamit nit ku lay jël rek ngir ngeen bokk liggéey day am ci yow yaakaar Babacar suñu jógee suñu lam la dañuy dem fi nga xam ne mooy observateur observateur daal dafa xëy dala ñi nga xam ne yéen ñenn si promoteurs yi ñoom neen ñu daal comme que Léopold Sédar Senghor dañ koy tëj defaraat ñoom neen duñ si duñ si sànni seen kàddu dañuy xaar daal buñ tëj stade bi ñoom ñu xam lu ñuy defanteeg autorité yi waaw ñoom daal noppi la ñuy def jàpp seen morso njàmbur di xaar buñ tëj ku ñu xool lu ñuy defante man nag dama naan defante bi du ko jar defante daal li ci gën mooy defante ci xel waaw moom looy def nga ànd sa xel parce que saa yoo mere rek ndey kumba sa xel réer la waaw nit ki bés boo meree sa xel di réer la parce que mën ngaa wax wala nga def looy réccu kon li am solo mooy promoteurs yi ay bailleurs lañu di doxal làmb ay at di ci dugal ba làmb de làmb tey di fay seen xaalis di tëgg ay mbër muy suñu sport national yaa ngi dégg ñoom ak état bi ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllum infrastructure ci dëkk bi mënuñoo tàqalikoo parce que dañ naan ñu bokkute ñooy raxasoo ay goj kon yaakaar naa ñu tëj Léopold Senghor même bu ñu ko tëjee ñoom nañu wax ak ñu war a waxal xool yaakaar naa itam du ñu ay étranger ci réew mi lañ dëkk yaa ngi dégg kon defe naa su waxtaan amee rek ci xel ak ci dal yaakaar naa ne dinañ war a trouver terrain d'entente ba nga xam ne bu keroogee kenn du ci war a loro yaa ngi dégg moo xam ñoom promoteur yi la moo xam ña yore Léopold Senghor la moo xam feneen ak feneen waaye li ma xam daal mooy euh, comme am nañ arène nationale itam rek man pour man benn xeex bi jëru ko euh, journal aussi observateur mi ngi xamal ne ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye bu nekk écurie Fass moom daal nee moom la Fass am na si moom yaakaar bu baax a baax a baax ndax amaan mi ngi bëree bëree dóor waaye tamit euh, bëree simple mi ngi si def feu et flamme Euh, Serigne Ndiaye numéro 2 boo xoolee entre lu ko commencé sax daaw jéeg daaw ba si ren gis nañ ko ci lutte simple bi mu di ci dugg di ci wane boppam bu baax a baax nekk xale nekk espoir comme ni ko su l'observateur bind si écrit face ah loolu tamit yaakaar naa ne ku ko gis ni muy bëree ak qualité bi ne si moom nekk xale gi mu nekk xale ku di nga xam ne am nga espoir bu dëgër mais nag li koy may doole mooy ci kaw nga encadré ko parce que itam lu mu mën a doon ci àddina lu ne buñ ko encadré wul teg ko ci aw yoon awale ko fi mu war a aw rek mën na amit même bu amoon talent wala moom am nekk espoir loolu mën na yàqu kon te defe naa naa ne waa Fass itam xanaa dinañ ko encadré mook ay moromam yu nekk sa écrit ba di ay espoir pour que ñu mën a jël seen écrit gën ko mën a teg ci yoon moom nag xale boo xam ne vraiment gis nañ que ni ñaari dimanche yi génn li a semaine daan Obali daan général Malika nga sax dajeek ngel parce que bi muy bëri fële ngel ñëwul woon mais Ndiaga Dolé la daan foofu tamit arène nationale kon defe naa loolu boo ko defee moom yaakaar naa ne écrit ba nga ne bu ñu la jàppale war nañu nag euh, observateur dañuy dem fi nga xam ne mooy record si micro euh, Abou daal nee na Ama Baldé nee na pren daal pour waxante ak yeneen promoteur dafa mel ni euh, chance yu mu joxoon Luc Nicolas mi ngi mi ngi commencé rocceeku. waaw parce que xam nga làmb moom mbër mi moom nekku fi ngir Ndeye Koumba wala ngir Babacar dafay nekk pour promoteur yëpp. képp ku mu mën a waxal pour ngeen déggoo ci kàddu yaakaar naa war na mën a wax ak yow te Ama day bëree waaw donte que nag Luc Nicolaï dox na kombaam parce que sax combat Ama bi nga xam ne nii moom lañ doxoon ba ñu taxaw na mooy diggante ak Tapha Tine te ko ko doxoon mooy Pape Abdou far ñu génnaat ca dem ci ko combat ak Modou Lo ku ko doon dox ñu ne Luc Nicolaï xëy nag bu ñu demee ba yaakaar na foofu déggoo amu fa ah am na droit kon ne maa ngi nii promoteur yi léegi ku mën ñëwal beneen champion bi bu euh, journal bi nag xëy def benn euh, samp laaj ci record nee ñu pakala lañ daal revoilà la toogoon na fi ay at yoo xam ne lawul mais daal daaw ak ren dafa mel ni moom moomee vent Babacar. ah waaw mu ngi boppam ndax yaaw defe naa maag yow ko fekk ñoo ko njëkk a fekk daaw pasi yaa ngi dégg mu finaalu fa jël lañ fa tegoon te noonu la ko toppee daaw ci saison bi bëri lu mu jël daaw ci àll bi ba ni saison bi tëj mu ngi wane boppam kon defe naa ren mu ñëwaat itam defaat loolu ci 72 heures mu gagné si boo xoolee valeur 1 million quatre-vingt mille francs ci entre àjjuma ak dimanche parce que dafa finalu adré arène Adrien Senghor mook mbaytin daan ko ñëw final waat fi nga xam ne mooy gaal gi ci dimanche bi mook Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye daan ko kon defe naa ne te paka la mbër bu mag la li may wax nag si làmb mooy di ko wax mbër yëpp daal mooy que ni man dama gëm ne ndey ko bu fekkee làmb ne nga mooy sa métier moom nga yaakaar semaine bu ne jàk si teg fii 2 millions mi ngaan teg fële 500000 kee teg Pape ja teg fee layti ndong teg fële àll bi million yi ne fi ak i cinq cent mille ak i huit cent mille te nga di mbër doo dem dàqi dépense bëri <laughs> un million quatre millions yi paka la gañu amul de lu mu ko jariñ ci këram ah <laughs> ndey kumba mbër yi nañu dem ngemb ji bëri ji dafa am ñoo xam ne lamb mën a gulee na yor lamb su la mën a gula yor da ngay dem nga ñafe ji ci biir ci biir mbapat yi mais tey bu ñu la nee Balla Gaye ne la Modou Lo ne la Gris Bordeaux ay Eumeu seen ñooñu làmb yor na leen yaa ngi dégg ñooñu actuellement làmb yor na leen mais am na ñoo xam ne nag làmb yoragu leen kon li ñu war a def mooy wàccaat ci biir entraîner ñàkkante ko yi nii ko paka lay def am na solo. loolu wóor parce que am na technicien naan euh, mbër dëgg day mapat avant muy dugg si bëre dóor bi. <laughs> rëg moom sax la ñuy si moom la ñuy dem fee si Lutte TV euh, Lutte TV demoon na fee si aéroport AIBD dem ko jëli jóge na États-Unis nee ñi nag arène bi lutte simple bi am na gan moom na waxtaan na ak euh, sunu naataangoo lamin nee na moom daal dafa ñëw kenn daal taxu ko mu si muy kenn rek moo ko tax yibbisi muy Bombardier bu pare nee na MMA bi tamit wax na daal lu bëre si micro lamin Babacar waa Sili TV ah moom rëg ci aéroport bi moog Lamine am na solo waa rëg moom li ma la wax rek mbër la bi nga xam ne boo ko déggee muy wax di nga xam ne moom li mu gëm lay wax ci làmb parce que moom dafa jàpp ne moom la nit nag loolu dafa baax si doomu aadama euh, maanaam xam nga nit damay dégg Babacar def waaw waxal ndey ko fal damaa gëm sama bopp nit sax du gëm boppam yàlla la ñuy gëm gëm yàlla rek lañ koy def mais nag am nga droit wóolu sa bopp ci li ngay def yaa ngi dégg jox sa bopp confiance Reug Reug loolu la gis si moom comme kii wala dafa ñëw ngir làmb wala ngir Bombardier wala sax la mu loyor mu soxla ko wax na dëgg nit ki dangay am objectif te mbër la vraiment boob ba tey mu ngi am ay combat arène di daan kuñ ko jox mu daan ko avec la manière yaakaar naa tey suñ demee bay wax digganteem ak Bombardier xel ne ci Bombardier nag wala ñu sa combat ak moom yaakaar naa sa xel war naa ne ci Modou Lo wala Balla Gaye numéro 2 yaa ngi dégg wala Gris Bordeaux wala Eumeu Sène wala Ama Baldé parce que nag damay wax encore une fois rek Reug Reug bokk na ci mbër yi nga xam ne ni war nañ ko bàyyi xel waaye làmb moom mu ne wala fukki at yu ne nga gis ci phénomène bu bees moom na dama yaakaar ne bokk na ci phénomène yu bees yooyu nga xam ne ci 10 ans yi ñu nekk ñëw na ci ci làmb donc loolu euh, am na solo suñu jógee nag Lutte TV nañuy jeexale ak Leewtoo TV Leewtoo TV nag dañoo demoon seeti euh, ki nga xam ne mooy deuxième tigre de Fass euh, Moustapha Gueye fee si école Sakura Badiane bu nekk waxtaan waxtaanteeg Babacar sunu naataango moom nag expliqué na ne moom mosul woote réunion te nee na def na ay rectificatif parce que amul prérogative woote réunion Abass Ndoye moom moo am prérogative woote réunion wax na tamit si combat bi nga xam ne Papa Sow daf ko war a bëre ak Siteu wax na daal. interview bu yaatu mu xam ne sekk na ko ak Babacar. waaw loolu am na Tafa Gueye démb lañ ko fekk école Manguier comme li ñu waxoon annoncé woon ne dafa waroon réunion samedi réunion ba maanaam mujj ci euh, maanaam ah, fiasco kenn ñëwul yaa ngi dégg démb nag bi ñu doxandoo fekk ko foofu nga xam ne mooy Manguier mook président bi Abbas ak ay nekk fa moom nag nee loolu amul parce que wootewul réunion ndax moom amul autorité wu woote réunion Abbas moo am autorité wu woote réunion yaa ngi dégg Abbas moo def loolu moo war a def loolu moom li mu woote woon li mu wax mooy ñuy commencé entraînement yi dugal suuf bi ci école bi defar ko pour que entraînement yi commencé waaye moom nee na wootewul tey suba waxi noppi Babacar si kàddu yooyu leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah di waajal yoonu gàmmu ji Babacar mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère so nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu délégué di nuyu Astan di ne DG Brahma Chéri Khadija euh, di nuyu samay doon Mame Diarra bébé Fallou bébé Rokhaya Moussa ak ki nga xam ni mooy Penda di nuyu aussi Aïda Diouf ak ki nga xam ni mooy Aïcha Faye madame Niaw waaw ñuy nuyu ñëpp comme ni nga ko waxee di nuyu waal sa yaay boobu suñu yaay mère Sow ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom tam di sàkku si moom ñaan di nuyu bépp yaay bu mu mën a doon rek ñu ngi lay nuyu di la di la ñaanal jàmm di sàkku ci yow ñaan waaye nag tey di wax euh, joyeux anniversaire sama benn rak sama soppe ku may jàppale si li may def muy jib seen bokk ak man mën naa ne sax deret bokk dëkk ak yaay nekk fii ci Petersen yaa ngi dégg bëri na lu Babacar di sol moo ko koy jox ba ci tubéy ji ma sol tey lay màggal anniversaire am di la 5 novembre kon jib yal na la anniversaire bi jig yàlla na nga ko yàgg a feete barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk xale bu yaru bu baax bu nangoo liggéey di ci profité di nuyu xaritam yépp rawatina waa Petersen ñi muy jaayandool ñoom pëteeg gars yi nekk foofu yépp su ma limee si su ma limee dinaa juum mais képp koo xam ne daal xam nga jib seen wala ngay soppeem maa ngi lay ñaanal yàlla nga ñaanal ko ci bisu feetam bi bisu anniversaire am bi yàlla na ko yàgg a feete di nuyu ñëpp ñoom Yankoba ñoom Fallou Petersen xam nga. sa mbokk yi daal. waaw sama waaw sama mbokk yi moom du ma leen parce que nit mbokkam sama mbokk yi nekk ak yaay nuyu naa leen ya nekk mbomboy reefan kër ngoon saa ak mbomboy waaw sama dëkku yaay la ñoo ñëpp nuyu naa leen ñaanal leen sama nijaay yi foofu sama nijaay njàmbe ngom maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak rakkam aadama ngom ak sama yaay yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu itam sama rak bi mu bokkal ndey ak baay muy soo dama rem di sëy fi Medina maa ngi a